oh tey sama xol bi sedd na. waaw dama sedd la ma ne ne. sama doom bi man kaay nii nam naa la. yaa ngi ci jàmm kii mu ne tam la di jëriñ. waaw ci la nga nekk yow tamit. ñàkk sama. ah tey de am naa jàmm. ah tey am naa jàmm. ci daal di ngeen toogal ça va bien. wàcc nga. waaw maa ngi soog a wàcc. naka liggéey bi. ah waaw. kii nu ma. saxaat na la de. naka def. kay kay kay naka def. ça va ba yaa ngi jàng. maa mi ngi jàng. waaw mi ngi baax boo dee xale. da ngay góorgóorlu jàng rek bañ a sëgg bañ a si. la waaye yow yéen yéen rek ah weeru koor wi ngeen nekk fi di bër ci bër ci xara même soo leen wóorul sax ngeen may nañu jàmm dox leen ngeen dem foofu yi. yaa ma seet.

ku ma doon woo kay. maa ngi lay xool fii foo nga nekkoon gisuma ko ba sonn xam naa day nelaw te sama gan gi. waaw. doom bi dama fàtte wooru ni ñuy waxtaan dañ koo fàtte ñëwal nga tàngal ko ginaar gi. mu ni ginaar gi. ma ne. Ah. sama gan waaw. doom ji wooru dama ko fàtte. ginaar gi dañoo ko sama doomu gan laa wax. waaw waay waay kii boo waay nag ginaar gi nag yàquwul nag man maa ko denc yàquwul jot a joxe gune. lan ma yàqu lan la yow. yow yéegal jàllal kii ginaar gi waaye yow dama koy wax Cheikh de oh, yéen ñu ni togg ñu ndogu nii waaye waaye yow waaye gaawal waaye yow eh, eh, tàngal biyaar bi yóbbu sama nene nene bi nga jox ko tey ko ci wàññi mu lekk. nee dama la dama nga lekk ba suur ba suur nene. yaa ngi sa ginnaaw sa kër sa papa nga ñëw. waaw kër papaam la. ah waaw waaw loolu lekk ba sama loxo bi si xam nga xam nga ni ci waañu nga jëm yaa gën a tay xam nga ni ci waañu nga jëm yow. eh toogal na la laaw. foofu nga war a toog. eh wàccal wàccal ni bab bi wàccal bab bi i mel ni buur eh waay. mais yéen yéen yéen yéen lan moo tax yéen yaruñu leen ah ah xaw ma da ngaa yore tey ñaa xaw ma hmm? waaye di nga xam ne ginaar du la jaar fii li ma li may def nag na nga dem boole ma dégg nga. boo demee man lekk naa ba suur dee. dégg soo defee ne sa yaay lekk naa la suuf dégg yaay sama xar dégg acca yàlla doon suuf acca toogal sa place lekk nga ba suuf mbaa nga ne ii soo yow lekk ko lépp ah ah nga ni ah ah ah ah, ah, ah tey sa gëmmañ kat baawaaw tey sa gëmmañ eh, eh, nga ni loo wax nga ni. yow bàyyi waay ci boobu bàyyi ma ne ko gën a sànq lu kon ñoo ko kii giraar. kon lekku dara. waaye de bàyyi ma rek bàyyi ma kii. Cheikh. Cheikh. la béykat. kaay. Eh. dama koy woo. Eh, Cheikh. waaw xew na ma kan ba sonn ko. ma woo ko pour mu tàngal xale bi ginaar ndax woor. mu ko ba jawaal ba diwal ko mayonnaise indi ko. ndax kër gi. dagg jox nga xale bi mu lekkam déet. dañoo dem ba foofu yaa ma dégg patron dem ba ci waaye ni moom tuñ dafa jëlee ma xoolal ko foofu ma kii gis moom lu ma ko jiwal. ma am dara tuñ bi dox na la nga lekk. waaw yow dagg léegi yow sa nopp yi lan moo ci nekk ah yow kenn mënu laa nga dégg. Cheikh lan la xam nga lu ko jox xale bi. mu dem jiwal ko may nees génn ko. daal dinaa la ko xamal. xanaa du lekk rek li may wax daal dina ko def wala mu dellu dëkk ba. lu leer laa la wax. jëlal xale bi nga yóbbu ko mu lekk. loxo xale bi nga dem yóbbu ko mu dem lekk. bàyyi leen coow am dagga indi dagga am dagga indi dagga ki du ki ko ñeme nga jàmba. yow moom du ma wax dara. séedéer sa nopp bi sax bu ci jàppoon di womat nga ànd ak moom. ubbil ko sa bopp. te ni plat bi laa wax am mburu mi xamoon li nga war def acca sa liggéey mais bàyyi mari nga bàyyi mari nga ñu doom doom yow commencé boo sax ñëw ci mari nga nga war a jaar am njàng kay day commencé base si li ci mbay na mi nga commencé. loolu benn boobu benn benn. booy sa yaram a ngi bëgg a tàng sa yaram a ngi bëgg a tàng bala ñëw ginnaaw gi dañ koo lakk te te du naan ginnaaw gi dañ koo lakk de xam nga dañ koo lakk booy booy su ma dee wax ak yow dama tontu ah eh yow laay waxal su ma dee wax ak yow dama tontu dofoo dina jàpp la ku mën a sàq mi war a mën a war a war a mën a tontu. dama ni ginaar gi dañ koo lakk wala lakkuñu ko dañ koo lakk wala lakkuñu ko wuy ma. ah dañ koo lakk kay dañ koo lakk dañ koo lakk waaye lakk nañ ko waaye lakkal nga ko yow it lakkal nga ko ndax bàyyi woo ko benn yoon bàyyi pomiteer bàyyi pomiteer booy booy bàyyi pomiteer booy bu ma tooñ waay bàyyi pomiteer bàyyi pomiteer bàyyi pomiteer bi waay beneen côté bi nga reñal beneen bi waaye yow réew nga de amal yow kon ginaar gi da koo bëgg a lekk ba mu jeex tax nga tas sama yaakaar quoi. waaw da nga jéem a jaay jéem a jaay tànn naam naa ma yow da ngaa tànn naam naa a yaatay tan jibo wowol pa jibo <laughs> aja Come on. ñaan yëpp bàyyi ba ko tas sama yaakaar gannaaw bi nga xam ne gannaaw pétaaw la hmm? nga xam ne hmm? Hmm? neexul ba neexul waaye gannaaw gii jëm nes dama ràbbe ca kaw seetaan leen ca kaw góor gu neex la ca kaw seetaan leen ko Zainaba ana catu kurki jai sada